di leen ziyaara bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan ci weer bu tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla ñu dugg ceeg bismillaahi rahmaani rahim te génn ceeg alhamdulilahi rabbil lépp luñ ci liggéey sëriñ bi nangul ñu ko te làqal ko fa yàq yëpp comme ni ko soxlaa wa waxee nag tëleen nañ lool ci kàddu yi ndax suñu kilifa yi moom bu ñu teewee waruñoo jël sax ay kàddu ci seen kanam waaye xanaa di yeesluwaat rek ci seen kanam ak di sàkkuwaat ñaan ñu ñëwoon fi nag tey di indi suñu àddiya ci koor gi muy luñu luñu xeeb lool donte ne àddiya sax du tuut waaye nag di sàkku yéen ci yéen ñaan ngeen ñaanal suñu soxna yi nga xamante ni ay ndaw lañ te sëriñ bi rek moo leen ñor sëriñ bi rek lañ bëgg sëriñ bi rek lañuy toog ñuy sàkk ci yéen ngeen ñaanal leen bu baax a baax yàlla def leen ay magi diine ak mag magi lislaam yàlla teg leen ci yoonu siraatal mustaqim te lépp lu ñuy sàkku ci bërëb bi yàlla nañ dajeeg moom barke sëriñ bi adde ji nag mu ngi toll ci trois cent cinquante moom lañ indi woon tey pour jébbal leen ko ngir ngeen yokk ñoo ñaanal ba bu déwénee lépp loo xamante ni lu jumaa ji di soxla la mu jógee ci ñun ñi ndax suñu yéene mooy loolu aouzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, soxna yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte wala di amaat mbégte di dajawaat ak yéen ci barab bu tedd bii nga xam ne yàlla def na nu bokk fi nekk di liggéeyal yàlla di liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci bérébam bii ñu di leen nuyu nag di teg nuyoo boobu ci loxo yi ñi nga xam ne ñoo leen jiite ñu soxna Astou gay ak soxna Awa Ndiaye suñu leen tuddee rek tuddaale nañ daayira bi yëpp eh, yéen ñëpp nag xam nañ leen xàmmee nañ leen gis nañ seen taxawaay itam ci liggéey bi dafa fekk ne rek lim moom boo ci duggee mën ngaa juum wala nga fàtte wala doo matal waaye ngeen yëg nag ràññee nañ leen bu baax ràññee seeni taxawaay ràññee seen i pasteef ci liggéey bi disit mi ngeen ciy doxe euh, di leen sant nag bu baax ci liggéey bii nga xam ne liggéeyaat ngeen ko ren ci mu jëm ci ndogu yi su fekkonte ne yemoon ngeen rek ci dagg seeni i yitte dagg seeni soxla dagg seen lépp ñëw ànd ci liggéey bi di ko liggéey ba mu sont rek doyoon na sëkk waaye yemu leen ca ngeen génnewaat ci seen alal lu toll nii ngir defaat ko ci li nga xam ne mooy frais yi nga xam ne moom lañuy ñuy liggéey liggéey bi loolu ku ne xam ne ni Pastef bu rëy la ku ne xam ne ni yéene bu rëy la ku ne xam ne itam ak bëgg ko lal Sëñ nag ku koy liggéeyal ku ne euh, na sa xel dal ndax dangay xam ne moom ni mu koy faral di waxee rek ñemewul boor dafa am fay te it am na ful la jutal ne du liggéeyloo comme nanguwuta comme naruta fay ku muy liggéeyloo rek daf fekk mu nar laa fay kon nag na seen xel na seen xel dal da ngeen gën a rafetal seen njort te xam ne Serigne Touba laa doon liggéeyal ba samay morom raw ma nopp mësu koo dégg bës bët mësu koo gis waaye noppit du ko dégg mukk bëtit du ko gis mukk li gën xel nag mooy ndaw yu toll fii ngeen toll ñu ci bari adduna lañ daan yittewoo ko fu adduna wootee ñu wuy ji tëggee ñu fekkee ji waaye seen xel sax lu jëm ci xalaat liggéeyal yàlla wala fu ñuy jaamoo yàlla kon nag su jamono doxee ba yéen ñii ngeen di ndaw toll foofee wan ginnaaw loolu lépp jublu yàlla jublu liggéeyu Serigne Touba yi wax dëgg yàlla dalal na xelum képp ku bëgg lu baax te xam nga ne liggéeyu Serigne Touba bi kanam rek la jëm Serigne Touba nag la waxoon ca téere ba rek moo nekk ci lépp lu muy def ba muy bind tasawudu sixaar dafa waxoon ne téere bi am na lu mu ci bëgg mooy wa kaw nahu saadata sibyaani wasii bi wa nis wasi bi wa subbaani wa nisbaani dafa bëggoon mu nekk texeeg ndaw ñi texeeg mag ñi nga xam ne dañoo sox ku bi jaaw texeeg waxambaane yi waaye texeeg jigéen ñi yéen ñi nag su ngeen boolee ñaar doon ay waxambaane doon ay jigéen teg ba noppi bàyyi seen lépp jublu ci liggéey boobu mel na ne kon la mu bëggoon jëpp téere boobee yéen nga koy jëmmal ci liggéey bi kon nag ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax waaye di leen encouragé nag di leen gën a soññi di leen gën a soññi ndax yoonu def lu baax dafa metti dafa metti te pakk yi ci nekk bari te ñi nga xam ne dañuy wut adduna it waxtu bu nekk dañuy jéem a yàqal ñiy wut lu baax rawatina ndaw rawatina ndaw lu jigéen li nekk sa kanam di la won naan la da ngaa tardé da ngaa ñàkk fayda defal ni sa morom yi defal nangam defal nangam ñooñu ñëpp ngeen gëm ne lu leen di tardé la waaye la am njariñ la am njariñ àdduna am njariñ àllaaxira mooy lii ngeen def te mooy liggéeyal Serigne Touba sax dàkk ci ak jub sax dàkk ci liggéeyal Serigne Touba te bañ koo booleeg dara bàyyi àdduna nee ndax àdduna amul solo diggante bu gàtt la euh, diggante fi ngay juddoo ak fi ngay mane ak fi ngay mane ak fi ngay talee dafa jege lool ci nit waaye jigéen a ca raw jigéen moom daanaka mën nañu wax ni ak dundam li ci am solo ngir mu ëpp mu góorgóorlu góorgóorlu góorgóorlu moom ëpp fanweeraat lu jafe la ndax bu juddoo balaa man dara na am ñaar fukki at wala lu ko jege new ne fukki at ak juróom diggante boobu mu dugg di fi muy duggee ci kër rek fi muy amee doomag fi nga xamante ne bi daanaka day daal di egg galum daanaka boo xoolee diggante bu gàtt lay doon te yàlla nag li am solo ci nit ki daanaka mi ngi ko gën a soxlaa ci diggante bi mu mane bi mu mane muy góor muy jigéen yàlla ak man la soxla ci nit ki jamono yi mu mane mu jël ak manam def ko ci nit ki ci ci ci ci ci yàlla ginnaaw dund nag dafa gàtt waaye li muy gàtt gàtt ak mën a ko gën a gàtt ndax booy door a ñëw doo mën dara te boo fi yàggee dootoo mën dara diggante boobu ci ngay profitoo def li ngeen war a def bala ngeen di gaal fan kër di leen jat njaboot di leen jat ak yeneen diggante boobu ci ngeen di profitoo defal yàlla li ngeen koy defal loolu mooy li am solo mooy fii ngeen toll tey jii nga xam ne xëy na njaboot gal fanagu leen gal fanalagu gal fanalagu leen xëy na yore gu leen njaboot gu leen di sonal wala gu leen di baare wala yu mel noonu dañu ci ëpp ay benn doom ñaari doom la ñu amagoon ñooñu ak ñi nga xam ne amaguñu sax borom kër bay am doom ak yooyu diggante boobu dafa nekk diggante bu am solo ci liggéeyal yàlla ndax boo ko xasee weesu même soo ko bëggee am yéene ji doo ko mënee na ko yéene doo ko mënee na nga ko ba te laal yàlla nag am na fayda ju tal ne lépp loo def mu dencal la ko wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah bu ngeen def rek te yàlla tax ngeen yàlla da leen koy dencal ba ëllëg fa mu amee njariñ mu jox leen ko te jigéen ñi fàggute fam dafa am solo ndax day rawaat ba ci ay njabootam de pàgguteefam dafa am solo ndax day royaat ba ci ak njabootam boo fekkente ne dangay jóg rek jëm ci lu baax waxtu wala yàlla joxee njaboot njaboot googee ngir ñu baax nangoo jëf ci lu baax day yomb lool waaye naka noonu itam su jógee jëm ci ab safaan foo rek yitteel ko àdduna rek yitteel ko jaaxaan rek yitteel ko njaboot ga muy am ëllëg mën na caa bañ am lu ko neex ca wax ca rek dañuy jëm kon nag na ci gën a góorgóorlu te sax ci te bañ a geesu bañ a xool lu leen di yàqal bañ a déglu ku leen di yàqal waaye ngeen xam ne rek lii mooy li am njariñ te ci diggante bu gàtt ngeen ci mën a amee li ngeen ci amee te lu ngeen ci am rek dootu leen ko ñàkk loolu mooy li am solo néeg ba mag di jàmm yàlla di ñëw di liggéey fii baax na lool ndax nit ki ak mu jëm rek mooy li am solo waaye nag ki ko tàmbalee daf koy gën ëppale ko ndax moom daf koo tàmbalee ba bu ëllëgee su mag dikkee fekk ko ci ne lëm mënu yàlla daf ko koy mottali loola mooy nekk li am solo kon nag jërë ngeen jëf yàlla na yàlla def ngeen di mag te yàlla def leen ngeen di mag ñu am barke yàlla defal leen ngeen am ay ñi amagul borom kër ñu am borom kër yu baax yu leen attan manal leen euh, te taxawu leen te boole leen ak ñoom jubal te jubale leen ñi nga xam ne am nañ ko it suñu borom jubale leen ak seen i borom kër te def ci seen diggante njaboot bu barkeel njaboot gi it yàlla def ñu ñuy sedd seen xol ba ëllëg ci biir lépp lu ngeen bëgg ci ñoom suñu borom mën leen ko defal Euh, loolu yomb na yàlla yomb na Serigne Touba te ngeen nag lépp lu ngeen bëgg it waxtu bu ngeen di liggéey ngeen di ko ci fas ngeen di ko ci fas nga xam ne la ngeen naroon a nekk di ko waxtaan waxtaanu àdduna wala ngeen di nekk ci seen i problème wala problème yi leen ko ci di xalaat li ngeen bëgg ëllëg ngeen di ko fas ci li ngeen di liggéey ndax lépp lu ngeen di fas rek xaj na ci ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal ñu teewaat fi na ngeen déwén kenn bañ a mànk suñu borom defal leen tawfiix dafa leen xewal yu yaatu ñi amagul ay borom kër suñu borom may leen ay borom kër yu sedd seen xol ñi ko amit suñu borom jubale leen ak seen i borom amagul njaboot suñu borom may leen njaboot ñi am njaboot it suñu borom jubal seenu njaboot te dolli leen njaboot ci barke Cheikhul Khadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaa xayra ataa bil bishri wal madadi